ndax maamu ngi ñoo bokk benn yaay bokk benn kër gi nekk mag ju am yërmande bëgg ay rakam bëgg ay magam bëgg waajuram yàlla nag mooy dogal tegoon ko nattu boobu léegi pendant des années teewul fu mu toll mi ngi toppatoo ay rakam di toppatoo jabootam di toppatoo yaayam suma sañoon it ah yalla bàyyi ko man ba ci kanam Mo fekk ndere njabootam bi yëpp ya, waaye nag yàlla bu may jox tàgguwuma kon su jele dama koy sant rek alhamdullilah ya, rabbil alamin wa nah, febar musul loxo musul jog ci man ci feebaram sax daf ma daan dimbalé. damay nek ci kër gi kenn du fi nek. Waye buggul ma dugg ci wañ. def dara day ñot ñoti ñew ba togg ni ma yaa toggal dina togg ñoo jox ma ma lekk. te mi ngi feebar mi ngi feebar ba alxames bi moo ci mujj yaay tey dama lay defaral pizza ma toog ma toog defar balay kontaan li defar ñëpp lekk. waxtu daaw ko ba bi mu feebaree waxtu daaw ko raw mu sëgg mu mu sigi waaye chaise lay teg jàkk ji fajar bu ne ma nga fa dem nañ bu wutal ko chaise bu muy toog keroog bu muy jóge ci jàkk ji daanu dafa daanu feebar foofu ñoo koy ji. nee na ma yaay. suñ ma fayoon sama prime yi ba tey eggal naa la sa kër gi man ko loolu de yàlla moo ko yore waaw yàlla moo ko yore bu soobee yàlla dina la ko fay lii daal mujj na ko wax ak man gëmoon yàlla la kenn ku yàlla la loolu gën a gën a gën a gën a marqué ci moom yàlla la na yow yaa daan woo sax wala nga ñëw fi xaw a kii mais moom moo lay defal dañuy wax rek yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam. 14 fois champion d'Afrique. su amee tam bëriwul nee naa ba muye mayo jotee ba taxawal sa réew jotee ba sonnal ca réew jotee kenn kenn mënu ko ci dénkaane yi nga xamante ne moom la mujjee dénk ñi ko gën a jege xam naa dénk na ko famille am waaye dénk na ko ay xaritam ministère nañ ko fay ay primam moo ko moom ñaxam la laaj na leen ko ci ak dundam Ken laajte na ay primam ba ci dernier Toko la da koo sam bugul yaay ji daralu ba nu mu feebaree yaay ji mo nekkon ci wadam yaay ji tam ñong koy sant bu baax ndax taxaw na kendo ndax kendo tol na si gudd yoo xam soxla won na ndimbal waye tamit ma ngi delu si di wax état du Sénégal kendo top na si primum ba so yoy ni si tuba mo bu dee ci jot na nak état du Sénégal ki nga xam ne mooy famille Kédougou yi bi nga xam ne tey bàyyi la leen ginnaaw